bokki taalibe yi bokki dëkkandoo yi noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen masawu ci ndox mi waaye nag lii mooy coobareel yàlla moo ko soob waaye ku xool ci kii tax ngeen bay seen lépp ñëw ci dëkk bi dëkk ak moom ak yéen ñi jóge fu ñëw ngir màggal si ku xool ci moom rek nu la ndox mi def rek da nga ko mën a muñ ngir moom na ko ndox ma daa def ca foofee juróom-ñaari at ak ñaari weer yoo xam ne taw bépp ci kawam lay sottiku mu di ko muñ ngelaw ak taw ak melax ak i dënnu lépp ci biti la koy fekk mbaaram ma di daanu mu di ko defaraat léeg mu ne ci keru garab muy taw doom fu mu dugg kenn du ko toggal kenn du ko fóotal kenn du ko baleel te loolu lépp kat ba mu koy daj suñ jëm yi rek a tax am na bis moos am koo xam ne yoonam niwu ci yëf waaye da koo xool bu mënu ko muñ mu ne ko ñëwul fii sama waañ wi maa bal la ko ba bët set ndax taw bu metti ak coono yu metti sëñ bi bale waañ teg fay téeréem fanaane julli ba bët set mu door a génnaat kookee loolee mu ko defal rek teg nañ ko ci ay weer kon mësuñoo nangu ko ko defal dara ak ku ko dimbale lu ne dañ na ko lu ne def nañ ko ko mu muñ lépp rek te suñ jëm yi rek a tax kon nag lu mën a xew rek nan gën a góor góorgóorlu te gën a muñ te xam ne moom jar na ko ndax jaral jaraloon nañ ko loolu yi kon nag noo ngi leen di masaw bu baax ci taw bi metti na ñi génn seeni kër ñi seeni bagage yàqu ñi seeni dund yàqu waaye loolu lépp nañ ko muñ ci sëñ Tuubaa tax te xool ci sëriñ bi rek te xam ne sëriñ bi moom defal nañu lu ne te mënuñu ko fay kon nag jaral na lu ne yal na yàlla woyofal yëpp te fay leen te boole nu nangul suñu taalib Sëñ Tuubaa boole nu ci dëgg dëgg dëgg ay taalib tey natt bii nga xam ne teg na leen ko muy ndox mi mu fayee leen ci lu kawe seen njort ci fii ci àddina ak fee jëm ëllëg ci àllaaxira wasalaamaaleykum wa wa barakaatu. ndox mu bari mi nga xam ne wàcc na ko fi jii commencé na dugal xaat fitna askan wi. ndax kat fi mu ne daanaka dëkk bi fépp ndox la waaw jamono ji daal moom circulation bi ci dëkk bi moom compliqué na trop trop trop laataa muy taw rek compliqué woon na ci euh, boo yittiwoo oto wala nga dem rawat na taxi yi nga jël dañuy fayee ko daanaka lañ daan fayee ko actuellement dañ ko doublé wala nga dañ ko triplé bu tawaatee dolli si nag moom dana doy waar waaw ndax moom taxi yi léegi ay 6 mille 7 mille la ñuy laal 8 8 000 dara ko doos laa jógee ñëw fii asalem cinq 000 laa fay démb itam même chose. te loolu kat démb kat taw amutoon xam naa daal euh, doy na waar daal dëkk bi daal moom liggéey bi ñu ciy wax ne def nañ ko fi ak bu tawee li nga ciy gis daal da ngay daal man daal milliards yu bari yii leen def nañ ci dëkk bi daal ak li ngay gis nii daal moom moom daal moom euh, doy na waar milliards daal moom fu ñu ko dugal waaye moom doy na waar te nag lii ba ca jumaa gi sax noonu la mel waaw ñu ni moom moom moom màggal gi moom ren gan ñi daa ngi sonn waak waaye nag doy na waar